dikkati na ak lu mën a am daal sang réew mi dafa jot libération yéeni kaay na ma nit ñaa ngi faatu ci anam yoo xam ne doy na waar lool ab teeg nañ boo xam ni moo daal di mab ci ay nit si ab site boo xam ne dañ fay daal di génnee or te bu clandestin la de nekk ci département bu Saraya yéeni kaay bi dama mbir maa ngi amee ci ci sayen surtout ab galerie boo xam ne dafa màbb alxamis gi ci benn groupe bu soxna boo xam ne ña nga bàyyeekoo woon ci dëkk bu ñuy woowee wortoxat yi ñoom nag la leen fa andi woon du lenn lu dul benn benn or yi nga xam ni moo fa nekkoon ñu daal di koy jël for ko yóbbu ko jaay ko mën ci dundal seenu njaboot libération ne ma nii la ñu tudd dala jàllo ñaar fukkat ak juróom-ñett la amoon faatu na lemaane si saxo fukkat ak ñeent la amoon faatu na faatu si saxo fukkat ak juróom-ñett la amoon faatu na ñoom ñépp nag suuf saa màbb seen kaw daal di leen di muur yàgguñu fa waaye faatu nañu secouriste si sulli nañu leer waaye fekk nañ njombe gi daal di am ñu ñàkk seenu bakkan te yéeni kaay bi ne ma jeexul de ndax Mamadou Dan fa xam yi ni ki démb daal di faatu ci même condition fanweeri at la amoon faat ci beneen site boo xam ni mi ngi am ci dëkk bu ñuy woowee Senzala ci commune bu Bambou turbine yéene kaay ne ma boobu day réew mi ñenn ñaa ngi fi am gàcce bay muuru Mamadou Lamine Diallo ci la bokk nee na audience bi nga xam ne moom président Macky Sall moom la séq ak Marine Le Pen day gàcceeg Sénégal la Marine la Pen du koo xam ni mees na nangoog moom mbagg Massamba Kane moo ko xamle Massamba Kane ni lenn coow li coow li mooy président Macky Sall ku mu la ngool ngir ñetteel bi mandat la bëgg Mimi Touré ak waa FRAPP France Dégage ci Walf Quotidien dara président Macky Sall day bu defee lii gàcceel nanu moom wu ma sax xalaat ne moom président Macky Sall jëf ji la def deful lii waaye bu ko defee day yàq na ko bu de ab allié la bëgg yàq na ko Massamba Kane ne président Macky Sall allié la bëgg ngir ñetteel bi mandat Sud Quotidien ne saa si tembe day lu taxaw ci kanam mu faxas lam waxoon ne day nal opposition bi moom Sall ngaari lam tooro burge de ma nga ca ma nga ca tànku fàqat ndengeñ yëkki ba biir weex Sonko teg suuf yéene kaay bi ne ma Sall ngaari benn projet la am saa si tembe de mooy gàntal bu Ousmane Sonko gaay Ousmane Sonko ci 24 heures yéene kaay naan na ko ba tàyyi moom Ousmane Sonko ci boppam atte boobee ñu ko woo da ca dul dem faf Babacar Ndiaye bu jeunesse patriotique ne moom président Macky Sall moo di daar daar ab procès ngir nag jël ab daan teg ci ndoddu Ousmane Sonko du man a bokk ci l'élection ñun ñëpp nag takku nan ba mel ni say saxaw fas yéene jaamarloo ak président Macky Sall ak képp koo xam ni fas nga yéene faagaagal Ousmane Sonko ak projet bi saa si téemé nag Babacar ne moom président Ousmane Sonko mooy sunu yitte képp ku ko bëgg laal daal sunu kaw fi mu toll nii lenn de sewunu lu dul résister l'indépendant yéene kaay ne leen résister résister bu ni moom président Macky day dalal na Marine Le Pen ca palais ba daal saaga waa diaspora bi diaspora nga xam ne Marine Le Pen ak baayam wan nañ ne wax leen ne ñu déggloo leen ne yéen kaay bi ne moom Marine Le Pen moo may la président dalal ci palais ba ko fàtte Massamba Kane ne troisième mandat mooy sababu président Macky Sall Sud Quotidien ne moo taxit mi ngi ci Sonko Babacar Ndiaye jeunesse patriotique ci a am na la ca des mooy wuy ji te day am l'enquête quotidien ne boobu daal sàll ngaaree ngay diil ab diil bu yees diggante moom ak États-Unis le soleil yéen a kaane diggante Afrique ak États-Unis day la ñuy waxtaanee Janet Janet Yellen mi ngi Sénégal secrétaire au trésor bu États-Unis ñëw ci réew mi le quotidien le quotidien ne américain yi kay raayi Sénégal yi lañ bëgg mu taxawati jub kocc diggante Dakar ak Bamako lañ bëgg taxawal les éco yéen a kaay na ma li taxaw mooy diggante Amadou Ba ak doom ja Xaadim Ba Amadou daal dinay wuli Xaadim xeexoo ba doxoon seen diggante cour d'appel Amadou Ba moo ca am ndam registre de commerce ba sax dindi nañ turam def ca bu baay ba tribune yéen ma conseil constitutionnel it dugaloon moom Mimi Touré Guy Marius Sagna ci rapport d' bu cour des comptes ba daal dinañ koy tàbbal vox populi ne ma la bëggoon amul ndax sept sages ci boppam ñoo ni document bii recevable boobu di ma ne kër Moustapha Niass day ma ngay baxee ne waa AFP ña ngay teesante Alioune Sarr dafa daal di budee boobee di Abdoulaye Wilane Aminata Mbengue Ndiaye bu Haut Conseil collectivité teritorial na ñetteel bi mandat waaw ñoom weer ya joxe nañ fa weer vox populi ne ma boobu day l'armée bi ma ngay def ay ratissage ci zone 4 ba ay opération ñu amal ko ca Casamance l'observateur ne balaa ngay daane xamal ni ci diwaanu nguur tës bu rëy moo fa am coroom la daal di faat jël néew ba daal di sànni ca àll ba moom ci boppam mu daal di daw làqu ji bi ak lu mën a am mbokk yi nañuy ñaan jàmm te yendoog jàmm hein, de nous avoir suivis sur Zik FM 89.7 et la chaîne leader merci aussi di ñu teewlu ci suñu plateforme digitale yi ci mel ni euh, Facebook Sen TV l'officiel itam fi ci mel ni l'application dans App Store ou Play Store merci à tous qui l'ont téléchargé la première manche informatique est finie avec euh, justement la compagnie de Mambay Birame Diadji Touré euh, Fabrice Nguema Momodou Fofana qui partent pour un excellent et bon week-end nous on poursuit avec Subatel qui est la dernière manche de la matinale et du bloc euh, Subatel nag ci kanam tuuti lay ñëw faaw ñu dem nag xool suñu partenaires yi bu ko defee ngeen xamaale nga xamante ni ñoom ñoo ñuy gunge bés bu nekk saa su nekk laata ñuy dugg ci biir suba teel